أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ngi muslu ci seytaane di sant yàlla bu baax di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa di yëkkati ay kàddu yu bàyyikoo ci président de la république son excellence Macky Sall wax nañ ko léegi moo ñu fi yebal lim nañu délégation bi ni mu tëdde ministre yi ko composé ak ñi ànd ak ñoom dale ci gouverneur préfet ak sous-préfet sëriñ bi président de la république bi ñuy ñëw daf ñu wax ni bu ngeen eggee daaru musti na ngeen jël nuyoo bi gën a sell joxal leen ma ko ki nga xam ni moo fi nekk tey di Serigne Cheikh Khady Mbacké yal na fi yal na te wér su ngeen jëlee nuyoo yooyu teg ko ci loxoom it na ngeen jël nuyoo yi gën a sell teg ko ci doomu soxna yi ngeen xam ni fekk ngeen ko fa yépp rawatina waa kër maam Thierno Birahim Mbacke bi nga xam ni moo sanc fii en 1912 Daaru Musti président xamal nañu ni bi nga yàlla bi yàlla defee muy wut réew mi ñëw na fii tàllal ay loxoom ñu ñaanal ko mi ngi ñuy xamal ni bis boobu bi mu ñëwee fii ba Daaru Musti fekku fi sëñ bi dañ ni ko sëñ bi mi ngi ñaari daxaar mu daal di départ fii ànd ak ñi mu àndal fekk ko ba bërëb boobu waxtaan ak moom tàllal ko ay loxoom mu ñaanal ko ngir mu jot ci Sénégal loolu nag yàlla def na ko tey ndax ñun ñëpp xam nañ ni le vingt cinq mars deux mille douze sénégalais yëpp en tout cas li ëpp ci senegal fal nañu président Macky mu nekk président de la république jataay bii day wax nañ ñu tamit ni mosu koo wuute wax nga ko léegi kon bu yàlla defee tey mu nekk président de la république def délégation yebal ñu fi ñu teew ñun de nañ ko sant yàlla am ci te lool ci bis bu sell bi nga xam ni ñëw nañ fi tey sëriñ Bassirou Abdou Khoudous yow mi porte parole njaboot président wax na buñ bu ñëwee ñu gërëm la sant la wax na it ñu jël niroo yooyu yëpp teg ko ci suñ Cheikh Khady mu jottalil ko ko xalif général des Mourides sëñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér président nee na jàpp na ay mbir ci bés bu mel nii d'abord li ko sos wax nañ ko maam boroom Touba bi mu jógee liggéey géej ba dellusi ki nga xam ni moo ko teeru moo waral bis bi nga xam ni moom la ñuy màggal tey muy maam Thierno Birahim Mbacke te jàng nañu tamit ni bi maam borom Touba di dem liggéeyi géej bàyyil na fi maam Thierno Birahim Mbacke ay yëf loolu mooy lan mooy bàyyil na ko fi njaboot bi bàyyil na ko fi mouridisme bàyyil na ko fi ay cantaane yoo xam ni biñ ci mën a jàpp mooy liggéey bi mu dellusee it jàngat nañu ni li ko maam borom Touba wax dafa ni dellu si naa fii de mais wóoruma di ndex bu doon yow yaa dem ba dellusi ndax ma dinaa fi dinga fi fekk loo xam ni moo ëpp li nga xam ni moom moom nga ma defal yow muy maam Thierno Birahim Mbacke kon kooku ak sëñ Touba ci li ñu xam jàng ko gëstu ko xam nañ ni benn lañu diggante mag ak rakk moom it mu def boppam taalibe magam di Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul jàngat yooyu buñ ko amee ba pare président de la république Macky Sall mi nga xam ni tey jii moom la yàlla def mu yor Sénégal yorinam bi mu yor senegaal daf ko teg ci ñett ba ñeenti ponk bi ci njëkk mooy li ñuy wax droiture mooy jub ak jubal ñaareel bi sëñ bi mooy li ñuy wax transparence mooy lépp leer lépp mel ni kër yëpp mel ni ay verre ci nekk ku ne di gis sa moroom la ngay doxal ak la ngay def ñetteel bi mooy équité équité ci tubaab mooy yemale maanaam ñoo xam ni senegal ñun ñëpp ñoo ko bokk du rek ñu ne dakaar wala ñu ne feneen mais booy liggéeyal day liggéeyal senegal yëpp bul ci wut ku ànd ak yow bul ci wut ku ànd ak yow wala ku bañ a ànd ak yow bul ci wut féete defaral ñëpp yemaleen beneen bi ci des muy lu am solo ci suñu réew mooy liggéey te yaakaar naa bu ñuy wax liggéey yoonu murit moo ko njëkk xal xàll ndax ñax jëf jël ñaq tedd kon loolu ñu ñuy woo ci liggéey moom le président de la république di woo sénégalais yépp pour ko ñu fonk liggéey di xëy waxtu di wàcc waxtu wala sax di xëy balaa waxtu di wàcc après waxtu foofu la Sénégal toll fi mu ne nii beneen bi ci des mooy sëñ Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides dal na fi yàgg te dafa wax wax ju am solo te mu wax ko daaw te baral bare na fu may demit di ko wax mooy dafa nañu dellu waay waaye nañ dellu ci mbay mi nañu dellu ci àll bi bay loolu nag président de la république programme principal am mooy agriculture te gis nañu ni daaw bi yàlla defee nawet bi baax jiwu am gerte day njëgam bare na président de la république fixé na ko cent quatre vingt mais gis nañ ni baykat yi jënd nañu ba jënd lu ëpp trois cents francs le kilo kon bu ñu delloo ci àll bi bay koom-koom dina am ci Sénégal liggéey dina am ci Sénégal bu ñu yaakaar ni lépp Dakar la féete Dakar dafa xat ñépp nga fa dankali ko waaye waaye nañu génn Dakar dellu ci àll bi liggéey ni ko sëriñ bi santaane ni ko président de la république tamit bëggee bu yàggul ko amul conseil des ministre bu ñuy def sama naataango yaa ngi nii toog te du ñëwaat ci mbirum bay ni mu amee importance ci senegal te sëriñ bi loolu la digle gis nañu tamit ci jàngat ni maam Thierno Birahim Mbacke li mu xàll ci àll bi fii bare na ci wàllu liggéey mbirum bay rekk lañ ko xame woon kon nag nañu dellu ci mbay mi jàngat nañ tamit ni gerte gi ñu yaakaaroon ni dañ ko nar rey mu dee gerte ba tey am na avenir ci Sénégal sëñ bi ndax ñi ko soxla moo bare mën nañ ci tudd chinois yi te jàngat nañu ni boroom xam-xam yi biñ ko gëstoo nee nañu fii fukki at Chine la mu daan jënd ci gerte dina ko yokk quarante pour cent maanaam produit na maanaam luy gerte ak xeetam fi mu ne nii àddina bi dañ ko soxla te ñun yàlla baaxe nañu may nañu suuf soo xam ni may nu jant may ñu taw te boo gerte rek la suñu suuf nangu kon nag nañu dellu ci mbayum gerte dellu ci yeneen mbay yi muy autosuffisance alimentaire Sénégal li muy jëggaane bare na président wax na ko daanaka lu ëpp ci li ñuy lekk ñun dañ koy jële bitim réew te mën nañoo li ñuy dundee mën nañ koo bay fii kon am na solo ñun ñëpp ñu fas suñu ndigg dellu ci àll bi bay njariñ a ngi ci njariñ a ngi pour ci mag ñi njariñ mi ngi ci pour xale yi njariñ a ngi ci pour jigéen ñi njariñ a ngi ci pour ñëpp te yàlla ku mu sàkk la ngay dunde sorewu la la lay fajit sorewu la maam yaa ngi fi woon la ñuy bay ci lañ daan dund la ñuy fajoo it sorewu leen ci ay garab kon nañu dellu ci mbay mi nañu fonk liggéey fonk lépp sëriñ bi président mi ngi am kontante bu baax a baax a baax ci bis bi di la gërëm di la sant di wax ni tamit li ko war yëpp xam na ko ci këru diine yi ba ñu defee conseil des ministres Kolda ci communication dafa wax ni nañu fexe ministre bu nekk yéen gouvernement bi laay wax yow premier ministre yéen ministre sectoriel yi dangeen ngeen fexe ku ne programme bi nga am nga bàyyi xel këru diine yi ndax foo xam ni diggante lu matul semaine Sénégal yépp war faa tase ak seeni soxla moo xam ci wàllu ndox moo xam ci wàllu leneen war ngeen fexe def fa ay jumtukaay yoo xam ni ñooñu askan woowu ñëw di ziare si duñu nekk ci ay jafe-jafe kon ci dynamique boobu ci la président de la république nekk di ko doxal di ci def ay effort en tout cas moom la ñu sant ñun ñii ministre buñ ko defee moom la ñu sant bu amee lu ci manqué it du ci moom ci ñun ñii la mais ndigal bi moom egg na te ñun ñëpp ku nekk war nga kaw doxee ba nga xamante ni këru diine yi yu mel ni bu amee benn jafe-jafe du ci am loolu mooy yéene président moom mooy yéene gouvernement bi ci la ñu xar suñu tànk xëy na nag lépp du mat ndax yàlla rek moo mën a mateel mais suñu yéene mooy progressivement en tout cas manque manque yeeg yi manqué ñu fexe ba at mu jot nit ñi di gis ay amélioration ci li ñuy liggéey fii ci biir mbir mi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp kaddu yi daal moom la président waxoon bu ñëwee ñu eggaleel ko ko lu ci rafet moom la lu ci awul yoon suñu di la li nga xamante ni moom moo taxit euh, délégation bi ñëw euh, li ñu waroon wax yépp loolu la bi may eggalee rek mooy ñu président nee na ñu ñaanal Sénégal ñaanal Sénégal jàmm am fi ñaanal Sénégal salaam am fi ndax jàmm ci la lépp xaj ñaanal tamit nawet bi nga xam ni moom lañu ñu dëgmal mu doon nawet bu barkeel nawet bu bare ndox xam naa bu ma nee bare ndox te toog ci wetu xaadim mi yor ministre des inondations dina am leen lu mu xalaat wante leen lépp xéewal la ñun bu ñu sañoon senegal ndox mi bare président nag jënd ay matukaayam pour dimbali ñi nga xam ni ñoo war a nekk ci mbirum mbënn mi mais na nawet bi bare te barkeel ñuy ñaan tamit nga ñaanal président de la république wax sëriñ bi mu ñaanal bu baax président la république ndax moom la askan bi wóolu moo jiite Sénégal bu nekkee ci jàmm rek Sénégal nekk ci jàmm ñu ñaanal ko ba mission bi nga xam ni moom la am ak mébét bi mu am te mu leer ñu ñun ñii nekk ci wetam bis bu bis bu yàlla sàkk pour liggéey Sénégal am na mébét boobu ñëpp jàppale ko ci liggéey boobu pour mu mën ko eggale ci jàmm ak salaam mu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu